asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw bu ma leen nuyu di saa su ne ngi a fas ci bopp xibaar yi laataa jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay fay wante maa ngi nuyu Assane Waalo sama jolof jolof bi borom Linguère di nuyu suñu mbokk internet yu ñuy topp yëpp ci Leewtoo TV naan leen cant ak ngërëm ñel na leen maa ngi nuyu bu baax waa Jurbel sama dëkk bàyyiwuma kenn. Assane Waalo maa ngi lay nuyu. Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di fay di nuyu internetu Leewtoo TV amaat mbégte jàkkaarloo ak ñoom. vendredi 29 janvier 2021 journal suñu lamb xëy ci xëtam bu njëkk mu ne. bourreau des Pikinois et Fassois Balla Gaye décime Pikine Modou Lo brûle Fass. noonu la ñu ko journal bi xamalee Ndeye Mbacke Balla gay 2 ni nga xamante ne bii moom mooy doomu Double Less le lion de Guédiawaye série buru bàcc li magu Sa Thiès journal bi xamal nañu ne Balla Gaye dafa teg 16 am buntu Pikine di raatale rek. ñam fa daan bari na champion yam fa jëflanteel ñi ci ëpp daf leen a daan wante tamit journal bi ñëw na xamal xamal xamal nañu ak ki nga xamante ne bii moom mooy Modou Lo di roi des arènes moom mi nga xamante ne moom moo dëkk fële ca Parcelles Assainies borom unité 1 ba 26 moom tamit ni mu toppee waa Fass Mboro metti na ndax ñam fa jëflanteel ñépp daf leen a daan moom tamit dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee eh, noonu la eh, journal suñu mu tey dafa digg xëy ci diggante Modou Lo ak Balla Gaye nee na Balla Gaye desim Pikine Modou Lo brûle face noonu la ko waxee Balla Gaye nee na eh, desim Pikine parce que Balla am na huit combats Pikine six victoires deux défaites nee na Balla Gaye daane na bàcc seeraas daane na Boy Sey Coly Faye Tyson Junior Balla Beye numéro 2 ak Tyson nee na ñaari defet yu mu am euh, Pikine yëpp Eumeu Sène moo ko ko teg ñëw na itam ci Modou Lo Modou nee ne moom mooy bureau waa fas ndax Modou am na 4 combats contre mbëru Fass 4 combats yooyu yëpp daf ko daane nee na daane na Papa Sow daane na Balla Diouf daane na Gris Bordeaux ñaari yoon noonu la journal euh, suñu laa mu dikkee ci ñaari mbër yooyu tey. ñoom dara combat nag mooy ki xam te ne mooy qualifié de Général Calais le 20 le 4 avril 2021 collision en vue entre Gaston Meng ak ñax bi mooy Samba Fall bés boobu noonu laa mu mel ñoom ñaar dañoo daje ci benn date muy le 4 avril ku ci nekk bëgg cee organiser li nga xamante ne bii moom mooy sa événement Assane. ni nga ko waxee Babacar noonu la mbëkkante bu métti lan nar a gis ci diggante euh, Gaston Mbengue ak Sambay Fall lu ko waral mooy ñoom ñaar dañu daje ci benn dat muy 4 avril Gaston Mbengue dafa génn ci presse bi ne bëgg na ko tëgg combat Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 le 4 avril prochain mais daf ne nag mi ngi xaar waa CNG pour ñu confirmer ko date boobu ginnaaw bi mu waxee loolu Sambay Fall dafa génn artu ko ne moom dat boobu moom moo ko jàppoon depuis daaw. Euh, te pare na pour dëgg tëgg ci combat bi di war a dox diggante Coly Faye ak général nee na combat boobu daal la ci bëgg amal kon gasoon na seeti beneen date. succession de Bira Sène à Kaolack Mamkor fay nouveau président du CRG. mu mel ni Kaolack ndangaan la ñu jëm fekki fa maam Kor Faye moom mi nga xamante ne bii moom moo wuutu Bira Sène ci président CNG bu Kaolack gannaaw ba Bira Sène léegi nekkee président CNG nga xamante ne bii lépp luy wàllu làmb ci Sénégal moom lañ ko dénk kon mën nañ wax ne fële ca Kaolack ndangaan ko ko fa wuutu moom mooy maam Kor Faye mel ni am na sas wu rëy dëgg la Babacar ni nga ko waxee noonu la ginnaaw ba Bira Sène wuutoo ci boppu CNG bi Mamkor Faye également moo wuutu Bira moomu ci wàllu CRG CRG moom mooy comité régional de gestion moom moo fa toog maintenant ci Thiès ci Kaolack Bira Mamkor Faye moomu nag di du ko gan du gan ci làmb ji ndax bokkoon na ci bureau bu génn boobu nekk na euh, nekkoon na itam professeur histoire géographie nekk na itam promoteur lutte simple ndax daan yëngu foofu sa kaw rek di fa tëgg ay combat mais également daan tëgg ay combat ci Adrien Senghor bii di nekk ci Grand Yoff kon ku xam làmb la ku xam làmb la ku xam làmb la démarrage des activités huis clos championnat d'Afrique le CNG ordonne de renouveler les licences CNG li mu xamal ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo bokk ci làmb ji mën na noo jege si ngir def seen ay renouvellement wante nee na bëgg na commencé ay ay joŋanteem ci li nga xam ne moom mooy huis clos ak joŋante bu mag bii di championnat d'Afrique. Adama Bopp moom moo ko xam xamle ci journal suñu làmb nee na démb CNG dafa doon def réunion mais réunion bu ñu fa tënk mooy que ne ñu ngi ci dernière ligne droite pour tëgg commencer démarrer saison bi nee na li ci des daal bëriwul pare nan pour tëgg combat yi waaye nag ñu ngi ñaan euh, écurie yi ak euh, promoteur yi ñoom ñëpp ñu dem renouveler seen licence baadu Adama Bopp nee na itam ci biir loolu euh, combat bi di combat yi dina démarrer waaye bu ñu démarrer ci huis clos koy amal. ka yaakaar ne tey wanul baat mooy Amaneex mu ne je vais le KO si le combat est mel ni yooyu la kàddu mi ngi ko yëkkatee fële ci États-Unis hmm. gannaaw démb bi Moussa yëkkatee ay kàddu jëmale ko ci combat bi bi ñuy dox digganteem ak ama Amaneex mel ni Amaneex nag bàyyilu ko dara nee na ko heure bu ma jàkkaarloog yow dama lay dóor nga wàcc. dëgg la Babacar ni nga ko waxee noonu la démb journal suñu làmb dafa dalal Moussa Ndoye Moussa Ndoye ne ne pare na pour bëre ak Amaneex bu ñu ko fayee 1000 sax pare na. tey nag journal suñu làmb dem seeti kuy ama neex pour mu euh, pour mu tontu tontu na nag nee na ne moom it pare na pour jàkkaarloog Moussa Ndoye te bu combat bi taxawee da koy dóor mu daanu euh, ama bari amaa neex nee na mu ngi euh, États-Unis di liggéey bu baax a baax a baax te bu diggee jàkkaarloog Moussa bu ko jàmbee rek bu ko jàppee rek làmb ji jeex ka taxawal mooy jamaïcain Leket Bara France le 28 janvier le 28 mars 2021 ubbi sa saison en Gambie. mu mel ni moom ma nga dëgmal Gambia jamaïcain borom Jams production gannaaw ba saison bi fii Sénégal kilifa yi lànk làmb ji boobu ba léegi waxuñu dara moom nee na gën a ubbi saison fële ca Gambia dëkku Adama boobu boobule. ni nga ko waxee noonu la euh, Babacar Jamaïcain comme que Sénégal seen euh, saison démarré gut moom nag bëgg na commencé démarré saison fu mu koy amalee mooy sa Gambie kañ le 28 mars 2021 ku muy boole mooy Leket Baara ak France combat boobu daal la bëgg a démarré saison am ca Gambie waaye nag neena na drapeau bu Youssou Ndour di leaderu Super Étoile moom lay pare nee combat boobu. jàmm ak bànneex moo am fee nga xam ne mooy golf sud nga xam ne mooy roi des arènes Balla Gaye moo doon Sa Thiès moo doon tudd doomam tuddee nga xam ne mooy Balla Gaye xale bi mu màgg te nekk magum diine nekk magum lislaam Sa Thiès doon ngénte doomam fële ca Géejawaay euh, jël xale bi dippee ko di Balla Gaye ñu mën fa jàpp nag gis nañ fa ay champion yu bari gis nañ fa ay naataangu mbërëm yu bëri ca bis boobu nga xam ne ci la doon ngéntee doomam Assane Babacar démb Leewtoo TV dafa def liggéey bu rafet ci ngénte googu ndax Ndeye Mbacke dafa dem am réaction Balla gay am réaction Sa am réaction jabaru Sa am réaction yaayu Sa Thiès également bébé bi daal moo réagirul démb <laughs> Ndeye Mbacke voilà euh, Leewtoo donc def ci liggéey bu rafet ngeen gis ko Sa Thiès jël euh, doomam jooju tuddee tuddee ko Balla Gaye muy geste boo xam ne nii sénégalais yëpp rafetlu nañ ko Ndeye ko ñaanal gudd yoon bu yoon bu rafet ni turoon dóoram te kañ dem nag mooy Gora Sock Gora Sock perd des points ginnaaw ba mu ñu la ñu gisoon ci Gora Sock ba am ci moom yaakaar gisatuñ ko suñu làmb xëy mu ne Gora des points. mu mel ni Gora Sock dafa defoon depart bu baax ci làmb ji ñu bëri doon ko bàyyi xel jàpp na mënoon naa dem sax bu nekk roi des arènes wante ñu bëri fi mu ko doon séentu ak fi mu nekk fi fi mu toll nii dañu jàpp ne dafa wuutee Assane. dëgg la Babacar Gora Sock ñëpp xam nañ ko ci lutte simple ak ci lutte dafa amoon ay début yu tonitruant loolu tonitruant noonu la ko journal bi waxee. Euh, waaye nag euh, par la suite dafa am retard ci làmb ji ndax dernier combat bi sax Tyson 2 moo ko daane te alors que moom amoon na forme boo xam ne ñëpp yaakaaroon nañ ne moom mooy daane combat boobu. loolu mu nekk retard ci moom léegi journal bi nag ne euh, Gora Sock mi daal mi ngi perte ay points ci làmb ji. ba Gora Sock ay points ki nga xam ne moo gagné ay points contrairement mooy Ada Fass. Ada mm-hmm. Fass la confirmation le la lutte avec frappe loolu la suñu journal xale bii di Ada Fass ni nga ko waxee phénomène la ci làmp ji macha allah mën a bëre mën a fecc su bëree mu neex wante su feccee mu neex tamit di ndaanaan kullu fadrin journal bi xamal nañu ne. Euh, saison bii di ñëw ñu ngi koy xaar pour mu def confirmation gannaaw ba mu jógee ci kombaam ak bébé Bismi. dëgg la mbay Babacar Ada Fass pour la confirmation noonu la ko journal bi waxee Ada Fass daaw dafa bëri ak Bismi Ndoye daane ko le mille janvier 2020 maintenant nag journal bi nee ne ndam loolu Ada war na ko confirmer ren Ada nag mbër moo xam ne nii mbër mu ndaw la technique na te euh, mën na xeex. ñeme na itam donc confirmation warul jafe ci moom Ndeye Mbacke. dañuy dem ci li nga xam ne mooy journal record avec lutte 57 victoires 41 défaites en 5 saisons Garga Mbossé et l'écurie Dóor Dóoraat force le respect. jërëjëf Ndeye Mbacke noonu nga ko waxee noonu la fële lañu jëm ca écurie Dóor Dóoraat fekk fa Zos ak rakkam ji di Garga Mbossé journal bi ñëw dafa ñu bilan. ci juróomi at yi jàll. Euh, écrit bi ñaata victoire la ci am ak ñaata défaite la ci am ci combat yi ñu jot a bëri ñu mën cee jàpp juróom fukki com juróom fukki victoire ak juróom-ñaar wante li ñu am ci ay défaite tamit toll na ci ñeent fukki défaite ak benn. dëgg la Babacar noonu nga ko waxee noonu la journal record xëy. def benn bilan ci écurie bi di Dóor dooraat nee na euh, Dóor Dóoraat ci 5 saison yi génn am na nañ 90 combats 98 combats 57 victoires 41 défaites nee na ci 98 combats yooyu disputé am nañ ci 58 pour cent de réussite nee na nag seen leader bii di Garga Mbossé 5 ans yooyu 2 euh, combats la ci am benn victoire benn défaite nee na daal euh, Garga Mbossé moomu mention passable la am. ba tey record la ñuy la ñuy desanteeg yéen lutte le prochain combat face à Nongolo Cheikh Tidiane vise vise un mu mel ni ràññee nañ ko bu baax a baax ci bëre simple bi moom Cheikh Tidiane Niang mu def ci ay jaloore yu bari kenn dootu ko présenté ci bëre simple wane boppam ci euh, jongante bi di drapeau chef de l'état ay yoon yoon euh, wante ba mu duggee ci arène bi tamit ba léegi mu ngi def ay preuve ay victoire la tegle mi ngi waajal combat ak ndongolo di combat ba nga xam ne amateur yi yëpp koy xaar nar a nekk combat bu nar a metti ci moom. dëgg la Mbaye Babacar euh, Cheikh jaan Niang vers son sixième vers sa sixième victoire noonu la ko journal bi waxee Cheikh Tidiane Niang kenn umpaleetu ko ci wàllu lutte simple mais ba mu duggee ci làmbu lutte avec frappe ba léegi nag jot na cee am cinq victoire jot na cee daan Souley Sarr laay soppi Waly Waly Ndour ak euh, Onge Ndiaye ak euh, capitaine ñii la jot a daane war a jàkkaarloo nag euh, ci sixième combat bi mbër mii di ndongolo ndongolo am 17 combats 10 victoires 7 defet mu mel ni mu mel ni ni koy waxee palmarès yi doonuñu benn. palmarès yi doonuñu benn ndax mu ndongolo moo ko jiitu yàgg yàgg moo ko jiitu ci làmb yi ndax jotagum na bëre 17 combats. bul fàtte ne garab tamit ci kaw lay fekkante ndax Cheikh Tidiane ku ko jiitu tamit mën na koo xaar. mën na daane ku nekk itam ndax euh, ku aay la ci lutte simple. ku aay la ci ponkal ku aay la ci lutte simple te bërëbër bu mu ci duggee ba léegi mu ngi ci wane boppam amagu ci defet du hésité te foo ko song mën na la daaneel. kooku mooy Cheikh Tidiane xele bu mat a bàyyi xel wante Ndongo Lo tamit di ndaanaan kullu fadrin mën a bëre mën a xeex am gannaaw wante am gannaaw tamit nekk ci dynamique ba nga xamante ne bii macha allah war naa mën a daan ku nekk ci làmb ci dëgg la Ndongo kenn dootu ko présenté moom itam mais jamono yi ñu passé dafa xawoon am ay difficulté ndax dafa tegale ay défaite looloo tax sax d'ailleurs mu nangoo jël Cheikh Tidiane pour relancer carrière am. ñu bëri jàpp bi risque bi mu ngi ëppee ci Ndongo mën na ko jël indil jafe-jafe bëree bëri ci moom jërëjëf Ndeye Mbacke loolu moom nekkoon li fi ruusoon ci wàllu xibaar. kontaan naa loolu moo nekkoon li gën a fës ci xibaaru làmb looy tàggatoo Mbaye Babacar. xanaa nuyu Assane nuyu la Ndeye Mbacke mais tey da ngaa sañse da ngaa te sax laay wax yow ci sañse nga dëkk macha allah ki lay solal nag war nga maa booleeg moom mu may solal jaajëfal na leen bu baax a baax suñu mbokk yi ñu toppoon ci Leewtoo TV di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm. mais maa ngi lay remercier comme d'habitude di remercier waa Linguère ñoom Yacine ñoom Massou di leen remercier yéen ñëpp jox dig daje euh, internetu Leewtoo TV ci yeneen i jamono. jaajëf internet Leewtoo TV lii mooy li gën a fës ci bopp xibaaru suñu làmb di jaajëfal équipe Leewtoo TV yëpp Mansour Mamadou Mané bégg naa bu baax Yacine Fall. maa ngi leen nuyu ah, Malick Malick Diop. Aïda de Aïda au carré sax laay wax ak Mantou bégg naa fan yu. leen jox dig daje ëllëg.